bisimilah. asalaamaaleykum mbokk yi man la Cheikh Talif ñu ngi fii ci Milan gis ngeen adresse bi nag jox nañ leen ko sooba tey euh, juum nañ nag bindaale ci adresse bi la 23 mais la 23 bokk ci ñu ngi fii ci Milan euh, ci Saaxo fii leen recevoir bu ñu jógee hôtel bi hôtel bi tamit ak kër gi benn la rek motul sax deux minutes mhm. ku xëy rek euh, di nga ñu gis mooy ñuy def visite pour privé pour Cheikh Bara Ndiaye bu baax a baax a baax a baax a baax léegi nag li leen di expliquer mooy euh, mbir yi ni muy demee mooy tey jii bu Cheikh Bara recevoir nit yu bari bu jeexee rek bu wàccee ci guddi gi day dem Torino pour balaa nit di ñëw xëy rek euh, di fi xaar muy xaw a metti ñu teel leen ko informé Torino nag fi mu dem après dinaan am adresse bi jox leen ko bu demee Torino nag vendredi incha allah ci ngoon bi day ñëwaat Milan. Euh, samedi bi avant muy dem ci confrance bi di ko soxla visite privée di ngeen mën a gisee après bu demee ci confrance bi dimanche bi dinañ liggéey dimanche bu jeexee rek euh, dañ takk jóg dem Allemagne Cologne ca di Sow kon euh, sama numéro ngi doon 77 527 18 07 nga def ojo bu gàtt rek ñu informer la jox la la jox la adresse bi nekk pour mbir bi leer kon war na leen samedi matin nit ki mën na ko gis ci lu gaaw dimanche mën nga koo gis ci lu gaaw Euh, tey jii nii bu bu bu heure bi jeexee rek bu wàccee day jubali Torino kon Torino dina leen wax fan lañ fay nekk parce que moins de deux jours lañ fay def quoi kon ngeen bàyyi ko xel bu baax audio yi gàtt appel tënk wax farata ku dugg euh, gis ko xam ne am na ñeneen ñu ko soxlaa gis ñu kii ko bu baax a baax Tektal TV Cheikh Talif tey nag. Malick Ndiaye yoonu yokkute moo nekk ci caméra bi <laughs> Sakho nekku fi <laughs> Ousseynou léegi nekku fi keneen moom it dafa sori na. Mor Sakho nekku fi waaw waaw Mor Seck nekku fi eh, Ousmane eh, Ousmane Fall nekku fi kon Tektal TV xewal dikk loraanga nag gis ngeen bedd yi kuy laajte boo ak seen fii rek ci siis bi nga yëg rek deuxième gis jaajëf xewal dikk loraanga. léegi da ngay xool vidéo bi xam normalement léegi da ngay wax ba heure.